kàngay na bu mu daal baax na. jërë ngeen jëf ni suñu yaay la bari na luñ koy gis waaye yàlla suñu borom dafa dogal tey toog ak moom ci loo xamante ni tiis la boo xam ne dal na ci mboolam làmb waaye rawatina mu dal sa kaw muy sa doom Pape Dia ana yan seede nga ñu mën a wax ci moom yaay booy. baax rek laa ci mën a seede xam nga waajur sax dina nëpp nëppal doom di seede ci loo xam ne yàlla da ko cay duma. Mhm. waaye li may seede yàlla rek a tax ma di ko seede Pape Dia day wax dëgg yàlla doom ju baax moom laa njëkk a gis ci doom waaye teral na ma fu teral di yem noppal na ma nag fu noppal di yem sonalu ma ci leen yaay booy ana bi nga jéggi bi nga génn na àdduna moo ko dundee. man yëgaluñ ma ko maa ko tiim maa tiim toppatoo ko di ko toppatoo di ko toppatoo bi mu feebaree dama doon wax ne bu waree wér yal na ko yàlla yëkkati mu dem bu warul a wér yal na ko yàlla defal dem gu sedd guy ndax yàlla ñaar yooyu rek a ànd. yàlla defal ko doom dem bu sedd guy ma toppatoo ko ba defar ko ba mu jekk ma door koo jox góor ñi santaat yàlla bu baax sama rangooñ dalul sama dënn di ko ñaanal fa mu jëm yàlla na ko gën gënal gënal fii mu jóge yaay booy mboolam ñu bokk làmb walla ñu am làmb yëpp ku ci jëflanteeg Papa li muy wax mooy kàddu gi yaram. dëgg la tegginam bëgg nit. képp ku gis rek. dëgg la adversaire Bombardier sax daf koy jàppee comme rakkam bi nga xamante ni. dëgg la dëgg la dëgg la noonu la ko yàlla bindee noonu la ko yàlla bindee dal la ko yàlla bindee ak teey dal geeg teey gi noonu la demee ba bi muy génn àdduna dal ak teey la demee am benn coono àdduna. jërëjëf yaay booy xam naa ne fi mu toll nii waxtu bi xat na ak ñi nga xamante ne dañu ñëw jaale. dëgg la ñu lay jaale ci turu wasaare gépp. dëgg la yàlla yërëm te xaare ko àjjana. amiin amiin woyofal. amiin amiin amiin te seddal ay yaxam. amiin amiin amiin ngi toog suñu yaay Kolle Ndiaye nga xam ne dëkkandoo la ci yaay booy yan seede nga ñu mën a wax ci Pape Dia tey. Pape de ni ma mën a wax ci moom bari na. ndax euh, dëkkandoo la woon boo xam ni kenn la woon am na yëg xam na nit respecté na nit jox na ñëpp cër Pape Dia amul ku mu joxul cër man de suñu kër gi de biñ fi taxusee ba léegi tabaske korité bii paase la ñëwul te boo fekk na mi ngi tëdd ba su ut bu ne koñ bii da koy wër kër gu ne mu dugg fi te loolu yëg la mënoon naa toog seen kër baax na yaru na am na yëg seen waa kër yëpp tax laa mën a wax ndax man loolu lañ ma woon ñoom ñëpp moom nag da cee raw ah dem gi mu dem nag ah lii mu doon def ci àddina lépp feeñ na tey yàlla naka yàlla xare àjjana yàlla bu mu réccu dara lépp lu mu doon def tey feeñ na fii tey ci nit ñi ndax baax rek ak yëg ku mel noonu doo nga mën a am lii mu am tey ndax kilifa génn na fi te amul lii Pape Dia am léegi nag li nga xam ne man maa ngi koy seede mooy di moom di jabaram di yaate seen réception fii sama kër lañ ko defee te yaate ci boppam biñ ko bi mu ci koñ bi la yaroo ba sëy ci koñ bi Pape ja jël ko mais yaat li mu ko xamee woon ci commencement bi ba tey loolu la nekke yaru na nangu na liggéey respecté na doomu aadama mën naa ne daal moom jëkkëram ñoo yemoon jikko waaw Pape nag lii la mën def rek lu ñu naqari mooy dem gi mu dem te loolu yàllaa ko def nuñ ci dara tey bu ñu sañoon tey mu toog fi ndax feebar bi da ko dar rek gañe ko mm-hmm. yóbbu ko xëy na nag yàlla mi ko def xam na lu tax mu def ko li ñu koy ñaanal daal mooy yàlla na ko yàlla xare àjjana mm-hmm. mais seede bi ñu mën a seede ci moom daal mooy ku baaxoon la ku yegoon nit te loolu mooy àddina mm-hmm. tey bu la rombee fii nga taxaw balaa muy dem dina taxaw wax ak yow nuyu la sargal la man bi ma mujjee wax ak moom fii daf ma romb di dem suba teel may bale ma ne ko Pape mu ne ma yow de jëloon naa sa numéro téléphone tax woo la ba ñu waxtaan mais gisaatoo ma ndax dama xaw a tawat damay dem ni Dakar rendez-vous mën naa ne jour boobu laa mujj wax ak moom wax bu boo xam ni ca taxaw nañ ñun ñaar seede mu mën a seede ci moom daal mooy ku baax la woon daal baax moo mënta bu baax waaw di ko ñaanal yàlla nag yàlla xare ko àjjana waaw loolu rek laa amoon ci lu ma ciy wax. yaay booy bi nga yëgee nouvelle bi. ñu woo wala noo ko déggee nouvelle bi. nouvelle bi daal ñun niñ ko déggee. ci guddi gi ñun ñëpp hmm. ndax man dama taxaw ci buntu kër gi doon seet sama benn sëb ma yónni woon bitig ba hmm. gis kenn ko dëkk ci kon gi daw ba seen buntu kër mu daanu bi mu daanoo foofu nag ma gis nit ñi rek la sama njort ñaaw daal hmm. ndax bi muy dem France yëg naa ko bon ma ne ah kii lii mu def de kiiwu ma ma dal dëgg tànk koy dëgër dem tiim ko ni anta lan lan la kii ne ma Pape Dia gaañu noonu laa ko yëgee mu chagame nag ndax dëgg-dëgg ah, feebar na dëgg la mais yaakaaruma ci woon loolu ndax biñ ne yóbbu nañ ko France sama xel dal na ci heure ma gisee yaayam laaj ko mu ne ma Pape de Ndiaye mi tane moom da tane na bu baax tax moo tax bi mu amee affaire bu choqué ma xam nga nit ko delloosiwaat fii mais nag lii la yàlla bëgg yàlla moom kenn fi taxaw nii tax bu ñu neexoon mu yóbbuñu te mënuñ ci dara di ñaan yàlla rek yàlla xare ko àjjana mais ku baax la woon loolu daal laa a seede ci moom ku baax la woon am na yëg koñ bi amul kenn koo xam ne xewle na man fii sama kër lu xew seen kër wallaahi taalaaxi day ñëw ba fii du mu guddi guddi ni paa kër ga kat nangam am na fa suba ndax damay bañ a toog ngeen gis nit ñi te xamu leen nu mu demee hmm. ba bi sëriñ bi taxu këram mooy ñëw ba fii nit ñi sëriñ kat dañ koy wàccal kaamil këram sama borom kër dem fa hmm. loolu yëg la hmm. te chaque jour que jafee lu xew seen kër day ñëw fi wax ñu waaw daal ñaanal ko yàlla daal yàlla xare ko àjjana loolu laa koy ñaanal yàlla mais baax moom baax na ba dem